waxtaan wi man la honorable président Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly njiitul coalition nekkal fi askan wi nekkoon candidat élection présidentielle 2024 ginnaaw bu ma santee yàlla bu baax sant si Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul tey jii mu nekkoon benn suur boo xamante ni journée historique la woon ci en tant que doomu daara nekk ku tudd Cheikh Abdou Mbacké dëkk Touba nekk njiitul coalition nekkal fi askan wi déposé woon candidature am ci conseil constitutionnel ñu waroon ko saytu tey mandataire bi jógee fa léegi ñëw rendre ñu compte ñu ne amuñu sañ-sañ nag toog di xaar ba suba te waxuñoo askan wi nga xamante ni mënuñ leen a def fay ñoom ñëpp kenn ku nekk gis nañ taxawaay bi mu taxaw si ñun ñi nga xam ñoo doon ñaanal aussi gis nañ lépp ñiy jàppale séparation bi gis nañ ko di sant bu baax suñu mandataire demb mi ak ñëpp ñoo xamante ni tey ñoo yëngu woon ci mbir mbir mi nag boo gisee mu am man bettuma parce que Macky Sall moo bëggul Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk candidat en tant que doomu daara en tant que dëkk Touba. am ndax li tax mooy xam na ni bu ma nekk candidat bokk naa ci candidat yi nga xamante ni ñoom ñooy daane candidat candidat bi mu tànn muy Amadou Ba ndax xam nañ ku gagné région de Diourbel gagné Dakar gagné feneen ak feneen yaay gagné Sénégal. te département Mbacké mooy département bi gën a ëpp population ci Sénégal kon tey bu suñu mandataire génnee nii conseil conseil nee nañ ko da nga am ay li nga xamante ni mooy ay nit yoo xam nekkuñu ci fiche électorale bi loolu du dëgg loolu buñ ko waxee du dëgg ndax ñun bu ñuy ne dañoo jël maanaam ki ñuy parrainé laaj ko photocopie d'identité mu jox ñu ko nit nag mun laa jox sa photocopie d'identité mu am carte électeur nga dugal ko maanaam ci biir ba pare ñu ne la yow ki nga xamante ne moo am carte électeur am nekkul ci fiche électorale bi loolu yënuwul maanaa te amul mu toll ci quinze mille six cent quatre vingt yoo xamante ne dañoo wax ne Cheikh Abdou Bara ci li nga déposé woon cinquante mille huit cent quatre yi loolu mooy li nga xamante ni nekkul ci fiche électorale bi te ñoo ñëpp li ma si gën a naqari mooy ñu si baree bari Touba lañ ndëkk ndax huit mille yëpp Touba lañ mooy ko ñu dëkk tuubaa tey jii may wax ñu si bare bari ñu ngi dox yor seen électeur bu élection jotee du ñu dem bu ñu demee du ñu fekk seen tur ci li nga xam mooy fii parce que Macky Sall moo bëggul Touba seen nekk si parce que xam nañ day perte foofu noonu. leneen si toppaat mooy bu fekkee dañoo wate loi boo xamante dañoo wax ne képp ku am doublon dañ laa war a daan ñu ne ma am nga doublon externe yoo xamante ni mi ngi toll si 23 357. mooy ñi ma njëkk a déposé man li ma déposé ñoom am na 23 000 yoo xam ne ñoom jeesaa ñoom euh, euh, pare nañ leen ba pare loolu du dëgg. leneen li nga xam mooy gën a garaaw mooy boo demee Tambacounda nga xam man maa ko def exprès Tambacounda sama ñaari mandataire ñoo fa nekk muy toutes les am suppléants ñaari mandataire ñu ne ma kenn ki parne loolu double externe est-ce que loolu yenn na bi ma leen wooye léegi sama kër ñoom lan ma wax mooy waxuñu dëgg parce que sama carte seen carte d'identité ko kenn tey ñu ne ma ñaar ñu nekk Tamba nga xamante ne say mandataire kenn ku nekk titulaire kenn ku nekk suppléant fan pare nañ ñoom ñaar muy ñaari mandataire kese nga xam ñaari tour laa def foofu Tambacounda réseau Tamba ñu ne ma ñaar ñooñu kat kenn ki pare na wu la kon li ñuy wax lépp dara ci dëgg lii nag maa ngi doon wax yenn politiciens yi nga xamante dañoo waxoon ni fichier bi baaxul ñu du ko wedd mais fichier électoral bi ku ci dem Macky Sall da lay gagné fichier électoral baaxul maa ngi woo opposition bépp ñu dug taxaw pour masser xeex euh, li nga xam mooy fichier électoral bi ñu wut fichier bu baax boo xam moom la ñuy jox ñu mën dem élection buñ ko deful ku dem élection Macky Sall da lay wax li Abdoulaye Wade waxoon 2019 fichier bi fichier Macky Sall la parce que deux fichier lañ yor bu leen neexee ñu génne fichier bu baax bu leen neexee ñu génne beneen fichier bi Macky Sall lu yàqu si réew moom moo ko yàq man nag sama ambition ci réew mi du Macky Sall moo ko mën a baare pour xañ ma parrainage dinaa fexe xeex tout ba karam may faatu dinaa ko fexe jëlee ko fi agressivement moom parce que dafa toroxal Sénégal dafa toroxal askan ndax man gis naa ni ñi ñu bàyyi ñu jàll ñëpp candidature tey kenn ku nekk xam na ne maa li ëpp dayo politique maa li ëpp moyen politique maa li gën a jege askan bi ñoolu ku nekk leer na la mais moo choisir a bàyyi ci yeewu bàyyi gun na ñett am na ñeneen ñaar yu war a bàyyi ci yeewu askan pour que watu yeewu askan tasaaroo mu am ñeneen ñu bàyyi waat ak ñeneen ñu bàyyi waat ngir que maanaam fexe ba nga xamante moom dana sàcc élection yi ba candidat mën a jàll looloo duñ ko accepté danañ waxtaan ak fan ñëw ñun ak coalition nekkal fi askan ba lépp loo xam ne war nañ koo jël si ay diisoo dañ ko jël ba baare route bi Macky Sall bëgg a teg pour sàcc élection yi 2024 teg fi fi neex pour continuer dictature daan ko def parce que nii moo baaree démb si guddi dégg naa ñu dana baare Ousmane Sonko même noonu am na beneen candidat mag buñ baaree ko buñ bëgg baaree ko noonu kon li ma wax mooy askan nañu jóg taxaw jonn xam ni lii xeexu population bi la du xeexu Cheikh Abdou Barou ndax lii amul complément mooy resenan la c'est dan la fekkonte ne dañ la wax ne lii nekkul loo xamante nii mi ngi si biir fiche bi mais lu nekkul si fiche électorale yow noo mën a xam ne nekkul si fiche électorale xam nga maa ngi doon dégg sama benn collègue Bougane Gueye Dany doon wax naan fiche bi baaxul mm. mais fiche bi baaxul ndax am nañ ci part de responsabilité. ndax mais am nañ am nañ ko si parce que waxoon nañ fichier bi nañ ko jox mais dañoo lànk parce xamoon nañ bu ñu joxee fichier bi lii ñu am nii du am parce man bu nee 15 nga am yoo xamante ni ko si fichier électoral bi mais fichier électoral bi mooy ñan koo xam ne war ngaa woote am sa carte électorale sa numéro électorale ne si nga dëkk Touba ñu ne yow bokkoo si fichier bi mooy wan ni dañoo bëgg seppi ñi nga xaman ne jàpp nañ ñoo leen man a sonal pour que ñoo man daal waaye ñoom sama yéene ci réew mi ak sama gis-gis ci réew mi ñoom tuuti nañu si pour que baare ma dinaa continuer xeex bi ma doon xeex pour jëlee fa Macky Sall agressivement parce que moo toroxal réew mi moo toroxal askan wi ñëpp ñoo mën ànd naa ànd ñoom pour Sénégal am ndam réew mi am démocratie loolu ñu ngi si kanam incha allah